téléspectateurs yi RTT TV tey ñoo ngi fii ci CNEPS fekk si fii équipe bi nga xamante ni mooy équipe bu CRG de lutte maanaam muy équipe bu Thiès bi nga xamante ni ñoo ngi waaj vingt et ñoom édition bu drapeau chef de neta mu war a amee fee ci Diourbel tey nag ñu déplacé wu ak la RTT TV ñëw pour jéem a jël si li nga xamante ni moom la waa Thiès am loolu mooy lan seen équipe bi nga xamante ni moo ko finalu jël ko mil 2020 final waat ko 2020 2021 digganteem ak Diourbel Diourbel jël ko ci loxoom tey nag drapeau boobu moom la dem bëgg bëgg ko jëlee jiwaat fekk ji Diourbel ci dëkkam mu fas yéene dem pour jëli ko loolu moo ñu indi fii tey ñu fekk fi nag directeur technique bi nga xamante ni moo yore équipe Thiès muy Mouhamadou Moustapha ñu bëgg a seq ak moom waxtaan ci wàllu préparation bi fan lañ ci toll ak nan la ñuy waaje ak nan la équipe bi di demee bu ko defee li ci des ñu bàyyi ko ci loxoy auditeurs yi ak ñi nga xam ne ñoo ñu seetaan ci kanam ngeen ñu ñu kon sama caméraman ñu ànd dem jëli directeur technique bi suñ paree jël réaction équipe bi nga xamante ni moom la ci sélectionné ko waxee waxee woon rek ñoo ngi fii ci SENEPS fekk fi nag euh, DTN bi mooy directeur technique bi nga xamante ne mi ngi préparé équipe am teju fii ak moom nekk regroupement donte ko ci weeru koor lañ ne ah defe naa nag loolu dina jaadu ñi ñëw ñi nga xam ne ñu ngi toog ci seen biir kër xamuñu fan la équipe bu Thiès bi toll ñu nekk ci préparation war a dem di défendre seen titre laay wax parce que ñu ngi ko ñàkki woon final. war a dem Diourbel. loolu mooy suñu tànk fii tey ñu ànd ak la RTT TV. bëgg xam Moustapha Ngom nan la tëjoo ki ak nan lay waajalee li nga xamante ne mooy vingt et unième édition drapeau chef de l'État mu war a dem Diourbel fas yéene ko uti fas yéene ko indi Moustapha Ngom nii moom. waaw nuyu naa la Pape Mbaye vraiment maa lay remercier yow seen ñëwaay seen tawaay bi parce que lii loolu les huit boobu la ñu liggéey di liggéey ñoom ñu ngi travaillé. Mm-hmm. vraiment technique comme ni nga ko waxee léegi koor la ñu nekk koor dafa liggéey koor dafa métti. Mm-hmm. mais vraiment on groupe boo xam ne ay compétiteurs lañu. yàgg nañoo dem drapeau chef d'état ñi ciy bees bëriwul. te bëgg nañ li ñuy def. Mm-hmm. moo tax boobu léegi vraiment ñu ngi fi depuis jeudi. di travail technique travail deux séances. heure bi liggéey ba après ndogu guddi gi aussi ñu amaat beneen séance vraiment travail technique individuel boobu léegi daal yàlla ngi def sutura ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey làqu làqu comme ni nga ko waxee rek làqu biir CREPS mhm. vraiment CREPS CDG bi aussi nous avons mis dans très bonne condition parce que ñoom ñoo permettre lii ñoom ñoo dema démarché lii yëpp comme chaque année dañ ko doon def mu ñuy jik loolu aussi ñu ñu tollanti ko moo tax boobu léegi ñu ngi fii vraiment di liggéey di liggéey nag équipe bi ak koor gi séance yi ñaari séance ngeen def par jour wala benn rek. non non ñaar ñaar la ñuy def. Hmm. comme ni ko gisee nii 17 17 heures 30 la ñuy commencé. Hmm. ba 18 heures 30 ñu arrêté. Hmm. bu ñu demee ndogu à def une séance de heure 30. après ñu suba ñu noppalu comme la majeure part dañuy woor. donc boobu nga def 3 séances day métti. waaw ah, comme ni ñu war a moo tax ñu bëgg adapté yooyu boo gisee. Ah. cinq heures demi naaj bi naaj baa ngi fi. Ah. ñu adapté tuuti parce que Diourbel la fa tàng. bon cinq heures demi ñëw travail adapté wu bu baax a baax ba yaram ñu bàyyi ñu demaat noppalu ndogu noppalu ba ci ba guddi gi ñu ñëwaat tuuti. parce que mais waa Thiès tamit am yaakaar bi ñu def ci drapeau chef de l'État parce que mënoo ko jël. Mhm. Euh, biir Mbour. Mhm. dem Kaolack finalu ko. Mhm. wala jógaat dem Diourbel tey ci ki ko jëloon seen loxo nag ñoom ñoo ñuy xaar. waaw li ñuy xaar nag mooy yombul parce que vraiment ki organisé ren ko ñàkk loon daaw moom la ñu demoon final mm-hmm. moo ren moom la ñu war a final lool ñoom moom moo organisé tax ñun nag suñu revanche la pour ñu dem vraiment jëli ko. moo tax fi mu nekk nii travail bi sas la ñu mm-hmm. sas la ñu ci population Thiès parce que pour dire que Thiès réy na. Mm-hmm. choisir dans durant la région lu métti la. ku ki choisir dañuy éliminé. moo yàlla baax na booba léegi ñu ñuy comprendre ak ñu ñuy jàppale côté de Mbour côté de Tivaouane côté de Thiès ba ñu am lii mu def vraiment ñu ñu ñu sas lu diis la. Mhm. sas yu na lool la ko li nekk suñu mbagg yi diis na lool mais dañuy comme dañuy wuti moom dañuy def li ñu war a def yëpp mu ci des nag ñoom la ak vraiment ñaan yàlla mu jàppale ñu vraiment chance bi nekk de notre côté. la chance bi nekk ci suñu côté loolu la Moustapha Ngom wax ñu nit moom lañ koy ñaanal mhm. mais dañu gis sélection bi aussi équipe bi changé complètement Euh, changement boobu est-ce que mën nañoo xam ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu a seetaan tel nga xamante ne mooy télé bi nga xam ñëpp koy seetaan. Mhm. maanaam changement équipe bi totalement. Mhm. ñi fi nekkoon daf ci am ñu nekk benn sa forme wala dañu parewul pour ñëw. waaw xam nga ñun dañuy yaatal. ñu mhm. ñi fi nekkoon woon nañ ñëpp. mais am na xam ne ndeysaan dañoo am ay combat. ñoom ñu am ay tex-tex. tax ñëwul ki ci mën a libidoor. vraiment yàgg nañ nekkoon capitaine. moom dafa am ndok dafa am lu préparé. wax ñu ñu jégal ko. moo tax teewul fii ñeneen ñi aussi bon en baisse de forme. la ñu nekk kenn moo fi ne mooy le capitaine Dibakor il est toujours la il est toujours constant. ok c'est gis nañ ci koo xam ne du fi gan. waaw du fi gan waaw gis nañ du fi gan. Mhm. Serigne Anne ñëpp xam nañ ko. dëgg la côté Tivaouane bi mu fa def jaloore. Mhm. Aliou moom it keneen ki fi ñëw sant si ku bees moom fi ñu liggéey daal. ñu liggéey daal am ci yaakaar ci ñëpp nag. yoo xam ne aussi xam na leen. waaw làmb xam na leen ku ci mel. naa ni ko laaj. waaw Ablaye Ndiaye kenn du ko laaj Georges mhm. dem Mamadou Zidane xam nga leen. ku yàgg dem làmb fii tournoi fi am au niveau national ak arène nationale xam nga leen. kon lan la a xaar ci Moustapha pour le 6 le 7 le 8. moom daal lañ xam ne vraiment lépp bu lépp lu ñu mën bu soobee yàlla dinañ ko def pour indi ndam li lépp lu ñu mën ak li ñu mënul dinañ ko def bu soobee xam nañ ni daal xam nañ ni du yomb. Mm-hmm. xam nañ ni ñi ñuy xaar bëri na. xam nañ ni vraiment du yomb. bu yàlla bu yàlla àndee daal. lépp lu ñu mën bu soobee yàlla. dinañ ko doon ko di ñaan nag. population parce que suuf travaux sociaux dafa am lu mu laaj. dafa laaj ay moyens. dafa laaj prise en charge comme ni ñu ko daan defee suñu autorité Thiès yi bëgg nañ daal. ñëpp daan ñëpp daan jàpp daal ñu jàppaat ci. sur le côté habillement. Mhm. sur le côté restauration. Mhm. sur le côté hébergement ba nga ne bu fa demee ak suñu. waaw kenn du ñu xeeb bu fa demee comme Thiès. ñëpp mais suñu demee yóbbuwuñ dara région de Thiès la ñuy xeeb. ñëpp waaw loolu am na. du du CRG bi du kenn. waaw CRG xeet kon ñu ngi loolu jàppale duñ ñu ngi leen ci autorité politique mhm. comité moom fooy mën a jàppale na ci jàpp ñu ci daan jàpp ñu mën a a ñaan aussi ñaan de côté da vraiment yàlla jàppale ñu ba ñu bu ñu ci équipe bi la gërëm la vraiment ci rafetlu liggéey bi aussi ah mhm. parce nekk si moo xam man dama koy seetaan ngeen ñëw fex ñuy liggéey vraiment dañuy li ngeen ne vraiment yokkati yokk ba yëg ko bon kon yéen a ko déggandoo ñu nekkoon nag euh, le directeur technique muy Mouhamadou Moustapha Ngom dégg ngeen li mu wax ci équipe am ci préparation bi fi mu ci toll ah muy doon loo xamante ne du yomb li ñuy xaar ku ne xam na ko mais nag ñi ñaan ci yàlla mi nga xamante ni dara jafewu ko mu ngi ñaan ci yàlla la nga xamante ni moom la ñàkkoon fee ci Kaolack yàlla suñu borom jox ko ko ci Jurbel gii mu jëm kon ba tey nag du ñu bàyyi mais damay ànd sama caméraman ba tey ñu jëli capitaine d'équipe bi ñu ànd ak équipe bi ñoom ñëpp ñu présenté wu wax ci kanam euh, média bi ñëpp dégg xam li leen di xaar bu ko defee seen i mbokk yëg ko ñëpp yëg ko kon sama cameraman tega sa baaram foofu ma ànd ak équipe bi. voilà comme mbokk yi téléspectateurs yi comme niñ leen ko waxee woon sànq rek ñoo ngi fii ci CNEPS tey gis nga ko ci équipe bu Thiès bi nga xamante ni mi ngi lëlu fii regroupement di waajal vingt et unième édition drapeau chef de l'État war a dem fecce kaw Diourbel di moins war ko fa jongante ji defe naa nag li ñuy xaar foofu yombul waaye nag yàlla moom dara jafewu ko ñu nekk nag ak capitaine d'équipe bi muy koo xamante ni kenn dootu ko laajte ci drapeau chef de l'État waxee rek turam defe naa ni dans le monde entier amul fu mu eggul ci naa ni mooy 86 kilos bi nga xamante ni ba mu dalee dem drapeau chef de l'état ba nga ni amul kenn ku mus a war ci kawam ñu koy ñaanal loolu yàlla na continuer mm. kon di ba koor ñu ñëw fekk si la ak sa équipe nga nekk fii ñu bëgg waxtaan ak yow ci waajtaay wi nga fidèle trop na ci équipe Thiès bi ñu bëgg a xam lan moo la fi bàyyi ak lan nga fi nekkee mooy suñu tànk fii tey bëgg a waxtaan ak nan ngeen di waajale bis bi nga xamante ne moo ne ci suñu kanam di ba koor nuyu nañ la. bismillah Cheikh. Mm-hmm. maa ngi leen di gërëm di leen sant. Mhm. di gërëm képp ku fi teew rek maa ngi lay gërëm di la sant. di sàkku ñi nga xam ne ñoo am ñaan. Mhm. ku nekk fi nga féetee nga ñaanal ñu. Mhm. ba xam ne bi ñuy dem. ñu su suñu yàlla suñu borom ma ñu ko si xol bu seddu guy. léegi nag kàddu gi dama koy jël. jox ko ki nga xam ne mooy sama gaayen di Laye Ndiaye. waaw léegi man maay capitaine bi mais kàddu gi moom laa koy jox quoi waaw mooy sama porte parole. <laughs> <laughs> kon ñoo ko déggandoo defe naa ne loolu rafet na yàgg na ci équipe bi mooy di d'équipe bi waaye nag nee na tey day jëlaat kàddu gi nga xamante ni moom lañ ko jébaloon joxaat ko xaritam frère am Ablaye Ndiaye comme ça nee na mu jàllaleel ko message bi nga xamante ni moom la ñu war a jàllale kon message bi nga xamante ni moom la sa doomu day war na jàllale ab Ablaye yaa koy jàllale ñu bëgg xam ne ngeen di waaje nan ngeen nekk fi regroupement ci yenn condition ngeen ne nan ngeen taxawee fii. Ablaye waaw nu ngeen di demee Diourbel. waaw avant tout d' abord xam nga ñu ngi saluer ñu fi nekk ñëpp. Mm. di saluer waa SNEIPS bi xam nga di saluer tamit suñu coach Ngom. Mm-hmm. moom chaque jour moom xoolal. lu baax rek lay def si ñun. xam nga nit des fois da ngay ñëw sax nga ñëw nekk nekk ni boo xam ne ne. Mhm. da ngay xat quoi. mais moom xool dafa ñëw maanaam ubbil ñu lépp moo seex. ak mhm. rek da lay motiver. day tax soo waroon def lu ndaw. Mhm. da nga nekk nii moom ça parce que ñu ngi récupéré ñu ba suur ñu ngi naan. entraînement yi ça aussi. mais ñu gis la ngay doo gan ci réseau bi ndax ci réseau bi nga dëkk. mais mu mel ni gan nga ci équipe bi. lan nga dund loolu. non comme par avant bu yàgg ba. Mhm. man du ma ne gan laa sax ndax mhm. ancien laa. dëgg la souvent dama doon ñëw mais sama poids bi doon ëpp. <laughs> waaw du ma doon daw. maanaam li li deux bi li nga koy yokk nii arrangé na la. waaw arrangé na ma waaw parce que def na ay lan coach ay deux mille douze wala deux mille treize. Mm-hmm. yëpp dama doon ñëw mais sama poids bi doon ëpp. dëgg tamit du kontaan si ñëw bi ñoom xam nga gars yi fi ñoom Georges. Mm-hmm. xam nga ñëpp xam nga saa yi moom huit personnes lañ. mais kenn xamagul kan mooy dem. ñun dañoo nekk nii rek jàpp liggéey. suñ jëlee ñeneen ñi tamit ñeneen ñu demul tamit ñu xam ne loolu ñu accompagner ñëpp rek. muy man muy Georges muy Diib muy quinze. muy mamu ñoom Cheikh mm-hmm. ñëpp si biir daal Jibi Ousseynou ñëpp si biir. waaw. léegi solo ngeen nekkandoo fi ak moom. waaw nga gis euh, muy lu raar. waaw ci lit pur nga gis euh, japonais. Mhm. ci seen biir maanaam li secret ban waaw secret bi mooy si ñoom la commencé. comme soo nee lutte dorokamee moom si ñu la commencé. Mm-hmm. parce que ñi xam nañ si lu bëri ñu nit suñuy waajur tamit xam nañ si lu bëri. Mm-hmm. dèjà ñu bëri suñu parents fi doon dem ba foofu di yokku ji xam-xam. kon suñu amee ñu mel ni ñu ñëw fekk si ñun. Mm-hmm. tamit day gën a yomb si ñun muy si Sonko muy si coach du même que Cheikh aussi. parce que des fois di nga fi xamee loo xam ne mosoo ko xam. waaw da ngay am lu bëri lu mu lay yokku daal. léegi mën nañoo xaar ngeen indil ñu trophée bi fii ci Thiès. waaw loolu tax a jóg comme man c'est la première fois de même que kii ñoom kii ñoom Georges ay ñoomin 15 diib ñoo fi nekkoon ancien ay ñoom Serigne ñoom mamu yi yëpp dem nañ. xam bu dul dara sax ñun ñu leen fekk si tamit dañoo war a ñëw pour prouver pour am ndam. xam nga bu dara sax di cees mooy kii dëkk yu bokk si Thiès yëpp xam nga tamit ñu jàppale ñu ñu ñaanal ñu parce que ñun benn suñu objectif mooy dem jël ko. xam nga affaire bi jëm ci kanam. Mm. te loolu nekkul lu bees suñu Thiès ci Thiès. dëgg la moom ay chef de l'État moom final nekkul lu bees moom. waaw moo ko jëloon moo ko final bi. ñaari édition yu mujj yi. waaw yéen a suñu borom tamit ñu ngi koy ñaan rek. ci kanam waaw mu ko waaw. léegi ñi nga xamante ni ñoo leen di seetaan ñu nekk Joal ak faneen ak faneen ñi nga xam na nañoo ñaan seen i doom nekk fii ban message ngeen leen di jàllale pour ñu mën a toog fan toog donte ko ñu ñëw. Mhm. la ñu mën a def pour Thiès am ndam. waaw di wax waa mbokku Thiès suñu mbokku waa Thiès ñu jàppale ñu xam nga tamit ñun ñii ñëpp ku si nekk am nga ay mbokk mhm. ñëpp ñu sàkku si ñoom ñaan mhm. xam nga ñun ñaanal ñun ñëpp bu dul dara sax yeneen dëkk fu nekk fu la yàlla dimbali rek nga am fa ay nit yu lay ñaanal rek ñu ngi ñaan ñu teg ñu loxo de même ko xam nga tamit bu dul dara sax fekk nañ fi tamit fii Thiès ay mbër xam ne ñu ngi fi tamit waaw di leen wax tamit ñoom tamit ñu jàpp si rek te xam ne ñun ñëpp benn la waaw ñu accompagne waaw gars yi fi nekk parce que il paraît que ñoom Modou Anta fi lañ dëkk ñoom euh, laay goote ambulance mhm. xam nga yëpp fi lañ dëkk champion yu bëri waaw xam nga champion yaa ngi fi. Mhm. tamit lépp benn la daal ñu ñëw. xam nga jàpp waaw oui. léegi Mbour. léegi Mbour bu Thiès bi équipe am la. waaw équipe Mbour waaw gis nga gars yi ñëpp a. ñu ñëw a équipe bi waaw ñu ñëw jàpp ñun ñëpp a da si am solo. xam nga tey dégg naa Mamadi bi nga jógal. maa <laughs> maa non gars yi koy toog rek. ah non non maa ah, su loolu day dem ko dama koy àndaale fii. ah <laughs> kon dama koy àndaale fii te su bu soxla woon fii nii man. dama non maa du Thiès lay ñëw. Ah. su ñëwoon Thiès nii ah. mu soxla kon damay arrière. bàyyi ko mu ñëw mooy ñëw taxaw waaw. jërëjëf <laughs> dara ci séeréer boobu. kon waaw bàyyi ko saa yi booy. George George waaw. kon gars yi sas na ne li ñu wax ci olof. yow nga ko ci séeréer pour mbokk yi dégg waaw loolu moom dëgg la. Ah. avant tout maa ngi nuyu ñëpp. Ah. di Sénégal. Ah. waaw di waa Thiès aussi di nuyu daal. waaw di nuyu sama mbokku mbër yi fii moom la euh, tout va bien quoi. <laughs> waaw regroupement bi dal nice. Hmm. waaw lekk moom jaar na yoon entraînement yëpp daal ngom moom amuñu. yom daal xamuñu fee am quoi. mais dans l' ensemble groupe bi. esprit de groupe bi dafa mel ni sa va. non Thiès moom dañ fi yéex a ñëw sax. billaahi. impec. loolu rafet na nan ngeen di waaj nga wax ko ci ak ñi leen war a jàppale ñi ngeen war a woo. i waaw nga fogole séeréer fop anda rek sakku waxa ñaan. Mm-hmm. ngandum région Fatick. parce que maa ngi ngenu région Thiès yëpp. Mhm. Sénégal tout daal. Mhm. waaw parce que avant tout Sénégal la. waaw mbe sakku waa daal. Mhm. imamo préto fop. waaw de ndimla rek waaw ndam ta in bo i ndam fane eh. quoi. waaw wax dëgg ne yàlla. goña poɗa to tig gisoro i nda fop dal gojofna panga fop dal i to me conseil an yones hmm. to ga'a me o kaga xeyna den dal hmm. a ah. jërëjëf kon defe naa ni ñoo ko déggandoo wax nañ ko ci langue bi nga xam ne moom la ñu dégg muy olof mm-hmm. mais dégg tamit Georges wax na ko ci làkkam bi nga xamante ne mooy séeréer mm-hmm. ay mbokkam man ko dégg parce que Sénégal noonu la mm-hmm. ñun ñëpp ñoo ko bokk séeréer yaa ngi ci tayit li nga xamante ne mooy làmb ñu koy jëfee di ci góorgóorlu mhm. defe naa ni séeréer yi am nañ ci wàllu bare bari mhm. kon mais ba tey nag des na duñ leen bàyyi dañu fi nekkandoo ba tey ak beneen grand champion boo xamante ni mi ngi ci regroupement bi man nag damaa xamul olof lay wax xaw ma eh, si chinois lay wax wala ci lan lay wala français la ah? ma séeréer la. ah kon yéen a ko dégg <laughs> japonais oh. c'est la première. ah Sénégal nga. waaw nga Sénégal la. Sénégal kon nag ñoo ko déggandoo kon nag songati na ngi nii songa nan ngeen nekk regroupement ak nan ngeen di waajee comme olof nga. ah. mani <laughs> songa ma ma ma ma nga. waaw na trop de. Sénégal ak groupe. groupe Thiès. Mhm. ñu ñu dem ñu ñu ñu dem euh, à mhm. gagner prendre, de de ouais, bien sûr. Euh, le premier. ñu nekk prendre premier. oui premier euh, oh. lekk. kon ñoo ko déggandoo defe naa ni jooju wax jël fa gudd. mais ah laaj ko lan la te kay neex. Cheikh ñëwoon ko. loolu moom damay la. waaw waaw loolu soog nga yow lan nga. maam mbëri la. ah yow mbër nga maam mbëri ah. hmm? yow nga ne yow nan ngay def yow. waa maa ngi def bëre bëre. bëre olympique waaw kon da ngay dem ba la développé la ah, olympique yow nga ne da ngay dem ba la. waaw damay dem ba jeex. da ngay ba jeex amul baay. amul baay kan mooy sa sëriñ yow. waaw Macky Sall mooy sama sëriñ. waaw ah, moom nee na mooy sa sëriñ yow. waaw waaw kon ñàkk tam gi ma ci dégg. ñàkk balaa préféré moom la la. maa. ceeb bi jën bu weex. ceeb bu mooy plat préféré. ku koy invité rek nu nga koy indil ceeb da nga ko toggee ceeb bu jën bu weex. yow dafa am da nga am combat ci journée Sidi Diakhaté production. le 29 combat am na ak Boy Diogo. Boy Diogo. Boy Diogo waaw. Hmm. nan nga koy préparé. comment tu prépares ton combat avec Boy Diogo. donc oh, comme d'habitude. comme d'habitude. je vais dormir. 집집세레베 만제들이 만제 제부젠부야 프랑트르마 자마이노폴 와 그래가 dem japp ko dal wa après tu vas partir lutter et gagner et revenir bien sûr voilà parce que Macky Sall mooy sa man sama sëriñ kon jeex na jërëjëf kon ñoo ko déggandoo songoti na ngi noonu moom ak Cheikh la woon dégg ko nee na moom plat préféré ceebu jën bu weex la lay ko doon ndang ndang mooy lan ndang ndang mooy lan ñu maa ngi lii dànk dànk moo jàpp golo ci ñaar. waaw kon a ñoo ko déggandoo bii japonais léegi mu dégg olof de <laughs> nee na nag moom sénégalais la sax man maa koy tuddee japonais mais nee na la <laughs> kon nag defe naa ni a ah, téléspectateurs yi foofu lañ leen di tàggoo di leen jox rendez Ah, ci drapeau chef de l'État bi nga xam ne ci lañ jëm mu war a tombé le 6 le 7 le 8. ñuy sàkku nag seen kaw ko Georges nee na ñu ngi seen kaw mais ñi ngi taal loxo ñëpp muy képp koo xam ne ku mën ñaan la képp koo nga xamante ne ku am lu def la loo nga xamante ne na tax Thiès am ndam ñu ngi lay taalal suñuy loxo muy kilifa diine muy kilifa aada muy képp koo nga xamante ne ku man dara la ci suñu yoon yi nga xam ne moom la ñuy waaj ñu ngi lay taalal suñu loxo kon nag damay ànd sama caméraman ñu tëjandi foofu émission bi nga xam ne moom lañ doon def ñu daal di dem àndandoo daal di dellu nag ci kër ga ba beneen yoon jërëjëf.